acharnement acharnement loolu est-ce que mun nga ko leeral carrément ñu xam ñen ñi acharné wu ak ci ban anam la ñuy acharné wu ci yow. waaw xam nga dossier boo xamee ni dafa nekk si yoon ci commencement ba ba léegi xam nga bi ma affaire bi dalee ma bëgg a wax comme nii ay ay kilifa dañu ma woo ma bul wax ñu bari na ma bul wax. comme kan <coughs> xaaral ma ñëw man leen mu maa tuumal lu toll nii te du ma du communiquer dama war a communiquer ñu ne ma noo bul communiquer ma gis yëf yi di dem. ma jël samay responsabilité am lu ma wax n'est-ce pas mu communiqué amatuma fi temps si diggante bi ma dem wuyu ji yoon acharnement yi di gën a ñëw ñuy bind si télé si journaux yi ku mel ni ay dara lu ko neex mu yàq ma ko lu ko neex mu wax di revue de presse ba mujj gi bu defee revue de presse lu ëpp ci Sénégalais yi saaga ko ndey pourtant sama dëkkandoo la. lu mu xam ci man rek xam naa ci moom lu ko raw. loo loo xam ci moom en tout cas muy wax. day koy wax xaaral rek à haute voix ñëpp lu mu xam ci man xam naa ci moom lu ko raw te mënu waxal dara lu bon ndax mosuma fekk ci lu bon mosuma fekk ci ci may def lu bon. ay dara teraanga rek laa séq ak moom fekk na ma ba assemblée nationale ma defal ko teraanga. fekk na ma ba sama biir kër ma defal ko teraanga. moom moo ñëw dis la soxlam nga defal ko teraanga wala moom moo ñëw nga yëkkati sa alal jox ah, defal ndànk rek sekk nañu teraanga am na ci loo xamee ni man ak moom la ci ay jamono yaa ngi may dégg journaliste dangay ma am éthique ak déontologie mais moom mënumaa singili man yi muy def nii du ma yëngal mais pourtant mu ngi wax ci keneen ak keneen honorable xaaral rek mu ngi wax ci keneen ak xaaral rek sëñ bi yii muy def nii man duma ma yëngal woo journaliste bindal diw si nangam ci buggaa ma revi ko presque parce que am na fu ma jaar ak moom xam naa yow da nga jàpp ne man koy corrompre xam naa ni muy ni muy doxalee di bindul di ma revue de presse yëngalu ma man ay yëngu di doxal si rajo di yuuxu ba xotteeku mais billaahi laay lesi bu ma seetu woon sama diggante ak sama borom man ak moom géejawaay gii dana abal dama abal géejawaay mbaa ma abal ko géejawaay parce que lu tax gënumaa ñaaw làmmiñ dàqumaa wax te mën naa ko fental way woo xamee ni ba ba ñuy dee su ma ko fental dootu génn géej waay mais àdduna jaralu ma ko moom rakk la ci man suma dëkkandoo la moom moo am xelu di nga yàq waaye man awma xelu di ko yàq bu politique jotee nag daañu politique. très bien donc loolu nañ ko bàyyi ci langue politique ah. bi. justement ñu wax ci beneen fee laata ñuy tàggoo mooy séjour carcéral bi ndax nekkoon nga prison nekkoon fa ak personnalité euh, ñu koy woowee Diop isek Diop moo may woo léegi. voilà noonu la ko <laughs> gaa yi xamee moo tax ñu ne Diop ISEC. ba mu jot la fa tuddee doom ndax mën nga ñëwaat ci euh, situation boobu context boobu nan la demee woon ba loolu yëpp jot fa am. waaw waaw xam nga Kaso dafa xaw a doy waar euh, surtout boo fa mosut a dugg xam nga ku mu jaaxal mooy ku fa mu a dugg waaye ku ko xas ba ñam moom dootu la jaaxal. Euh, yàlla def na daysaan bi mu ñëwee fekk ma fa bokkuñu fu ñu nekkoon man maa ngi woon ci ginnaaw infirmerie. moom mi ngi woon ci biir détention bi bu ñu xëyee dañuy dajee bibliothèque foofu tamit maa ngi fi remercier administration pénitentiaire foofu ñëpp la ñu yamale ku war a ñëw foofu rek da nga fay ñëw jàng liir jàng alxuraan ba midi nga dem añi